sortie euh, du mouvement Yanamar. Euh, marre bi nga nañ depuis euh, avant-hier euh, gis a at critique yeeg même sax attaqué par rapport ak la personne de Tchad et ki nga xam à moo Nous, Aliou Sané noo jàngatee li nga ces arrestations et même cette sortie du mouvement Yanamar. voilà arrestations yi lay démarrer xam nga constat bi mu si njëkk a def mooy su fekkoonte ne mbiri politique deug deug deug la mm-hmm. ay politiciens deug deug ñoy ñoy doxal wala ñoy taxaw du ñu leen waxtu wi parce que su fekkoon ne lecture politique rek la def. dañ mhm. dugg nañ ci période boo xamante ne boo fi arrêté Bougane yaa ngi koy may risque. mais dafa am loo xam tamit dafa am su fekkente ni ki dafa nekk ci penc mi. Mm. waaw chaque jour mu commettre benn infraction chaque jour mu commettre benn infraction ñëpp di ko observer ñëpp di ko constater ñëpp di ko gis. Mm. après ñu taxaw ne noonu nañ ko bàyyi parce que suñ ko jàppee mën na. mën na am lu mu indi wala bu ñu ko jàppee suba la tabaski wala gannaaw suba la tabaski day du du tabaskee këram. Mm. yooyu dafay indi ñu am benn tollaatle boo xamante ne xaajaatle bi am ci biir askan te loolu baaxul. Mm-hmm. moo waral tey jii le fait que nit ñu doon am benn discours bu ñu ko jàppee dañ koy may bës loolu c'est très dangereux dans une république. parce que nul n'est au-dessus de la loi. Mm-hmm. diw bu ñu ko jàppee dañ koy may bës diw bu ñu ko jàpp daa bëgg ñu jàpp ko diw noo bu defee lu jar a jàpp dañ koy jàpp. tout ak jamono ju mu ko defee ak nu mu ko mun defee noonu la justice di doxee. ñoom boo leen dégloo sax dañ naan leen justice amul amul temps waaw amul mhm. guddi nga commettre infraction wala démb nga ko ne wala nangam ak nangam. Mhm. bu ñu la waree jàpp am li ñu la war a jàppee dañ lay jàpp. Mhm. waaw léegi nag bu fekkente ne dañ naan loo yeneen yu si teg ay calcul politique lay doon. te calcul politique bu ñu dañuy dellu fa ñu nekkoon. maanaam premier ministre mooy décidé wala président mooy décidé jàppal mu jàpp. bàyyil mu bàpp et loolu c'est très dangereux. gis nga régime bii doog a ñëw. day am ñu mu jàkkaarloo ñoom duñ ko nangul. loolu régime yëpp dañ koo confronté ak moom. gis nga Abdou Diouf biko biko biko ko bi jox nguur gi dafa xamne amna ay baron social yu am doole yo xamanteni ki c'est un jeune mm. bo xamanteni il n'a que 35 ans amugul doole nonu njit njit njit njit noonu autant pour moi amul 35 45 ans mm. bo xamanteni amul doole nonu mu fekk fi ñuko ëpp doon ëpp ay kilifa gis nga bo ba mu ñëwé cri la dal di dekki tek nap napé len ko mm. parce que xamone na né bo amna ñu bëri bu amul menace bu mu tek seen kaw dañ koy songu Macky Sall bi mu ñëwé Abdoulaye Wade dafa ñu ubbi buntu transhumance bi mm. nit ñi daw si di ñëw nit ñi daw si ñëw daal di renforcer wu ñëpp daal di ñëwaat Macky Sall bi mu ñëwee moo fi njëkk a tëj ñoom euh, maître Amadou Sall mm-hmm. lu mu leen tëjee woon Amadou Sall bi nekkoon après avocat wu Karim Wade ak yu ni mel mm-hmm. parce que dafa jàpp ne daf ko wax loo xam ne waxuwul Bara Gaye mi mi nekk pur tey ji Macky Sall dencoon na ko fi parce que dafa ñu ñu bëri ñoo xamante ne da ngay gis ne kon booy doog a ñëw am na ñoom duñ la nangul léegi ñàkk nangul boobu nag il faut nga wan ne ne a une autorité dans pays bu fi nekk boo xamante ne boo jàddoon mu teg la si yoon mais foofu su fa état bi wala autorité bi su fa delloo ginnaaw rek c'est fini wax maanaam warul doon benn dictateur waaye tamit daf leen war a wan ne ah yéen kat diw mi ngeen doon gis si télé bi ba jàppee ko mun musoo leen koo xoolee bëtu kilifa. Mm. il est temps ngeen xoolee ko bëtu kilifa. Mm. boo demee dugg toog ñu ko la nga ñu tegal la chaise nga toog di xaar ñu diglu. ñu lay déglu nga dugg beex génn baagante bi nga xëy ñu ñu bu la kaaf euh, ba nga dem di xaar procureur mais boo toogee di ne ah kon man ki ma daan gis si télé bi di ko tuutal ki ma doon wax baat yi moom moom ma jarale ak lépp lu ci am mais Bougane bu mu génnee la mu doon wax ndax waxaat na ko ci conférence de presse ba hmm. waxaatu ko te amaana bu bu parenthèse bi amul woon bu génnaatee bu defaatee conférence de presse day répéter les mêmes kon hmm. na lenn loo xam ne dindi na ko ci benn ñàkk worma ak benn xotti worma boo xam mu def de façon délibérée jëmale ci ñi nga ñoo nekk ci kaw bopp réew mhm. kon loolu pour man bu lu ndaw sax ko mu ci mbir hmm. nga dégg ñeneen ñi tamit même discours boobu lañ am suñu justice nangam ak grosso modo pour man c'est une parenthèse boo xamante ne ko interpréter façon yu bëri. Hmm. man dama quelque chose malheureux bon waaye tamit ci maintenant lu ñëw ci euh, génn bi maar hmm. lecture bi dama jàpp ne dafa teel. c'est vrai nag ni Clédor waxee rek dañu nekk ci démocratie nag mënuñu am benn régime bu fi nekk ñu ne bu kenn wax. Mhm. bu waa société civile waxee ñu ne nañ noppi bu droit de l'homme waxee ñu ne nañ noppi keneen ko wax ñu ne na noppi waroon waroo leen wax non non. Mhm. ñooñu nga xamante ne dañoo constitué nekk ay garde-fou dañuy dimbali sax régime bi. parce boo nekkee ci nguur gars dañ lay créer ay intermédiaires yoo xamante ne. daanaka daanaka daanaka dootoo leen dootoo leen dootoo dootoo bàyyati xel sa sa sa askan et loolu c'est très donc il faut nga am ay droits de l'hommiste il faut nga am nga nga nga am ñoo xamante ne dañ lay dañ lay dimbali ba ba nga ba ba ba nga ba bañ a tarxis mm-hmm. maintenant ñoom nag dama jàpp ne bi daa teel mm-hmm. da dañ ko xawtu maanaam dafa daf dañ ko teel a def par rapport te boo leen déggee seen discours ak façon bi ñu ko doon waxee dafay mel ni comme si que dañu dellu ci état bi Macky Sall toll woon te loolu laa jàpp ne rek benn tarxis la boo xamante ne tey jii. Euh, mënoon na mënoon mënoon na mënoon nañ ko cadrer par rapport ak li nga xamante ne moo di situation bi mais dañuy wax comme si que ne dëkk bi dafa dugg ci benn zone boo xam ne wala mi ngi fay waaj a dugg. te pour man ñetti interpellation yi am euh, euh, convocation sax la interpellation way mais euh, bokkul daal ak li nga xamante ne foofu lañ yaakaar ne réew mi fa lay dem. Mm-hmm. mais nag baax na bi ñoom taxawaay sentinelle mais d' accord ma ak ñoom ci sortie bi. Mm-hmm. Madiambal bi ñu interdit woon pour mu génn. waaw foofu benn kaa lañ déggagul mm. te nag pour man war nañ communiquer. Hmm. waaw benn camp lañ dégg mu ne mu ne musul am. passeport diplomatique passeport diplomatique lañ koy laaj. loolu mooy problème moo tax ma ne foofu problème communication dafa am parce ma jam